merci beaucoup donc maa leen di sant di leen gërëm ci tey jii ñu daje fii di euh, li ñu célébrer li nga xam ne mooy bis bi ñu jagleel xeex sibiru ci àdduna bi foofu laaj tàmbale di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay fii di wax ne Sénégal quand am na ay jéego yu bari ñu ngi koy def ci wàllu xeex sibiru mais dama bëggoon fàttali rek que ci àdduna bi tey jii euh, sibiru bi dafa nekk toujours euh, problème bu rëy a rëy 2020 ba ñu xayma 2020 bi rapport bi nga xam ne moom la Fonds mondial euh, OMS def gis nañ ne nombre de yi toll na ci pratiquement 240 millions de cas de paludisme yi ñu am ci àdduna bi avec plus de cent 000 personnes yoo xam ne faatu nañ ci et 80 pour cent c'est-à-dire téeméer boo jël ci situation boobu yëpp ci biir Afrique lañ koy retrouver pour wane ne donc sibiru bi nekk na ba léegi jafe-jafe bu rëy tey boo ñëwee ci Sénégal. gis nañ ne nombre de yi ñu am toll na ci pratiquement trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cas environ xam naa waxu ci olof dina xaw a jafe tuuti mais comparé à deux mille vingt deux mille vingt gis nañ ne dafa xaw a yokk tuuti ñi ci faatu aussi dem na ba toll ci trois cent quatre dix neuf cas euh, mu à peu près quatre cent cas quatre cent cas ñu yu faatu comparé à l'année dernière ñi nga xam ne ñu ngi woon ci trois cent soixante-treize personnes ci faatu loolu wane na ne. sibiru bi quand même euh, ñu ngi ci euh, digg digg kii bi daal parce que malgré que ba ñu xaymaa suñu plan stratégique bi bu jógee 2016 2020 wane nañ ne quand même sibiru bu wàññeeku na bu baax ci diggante boobu parce que boo jëlee téeméer wàññi nañ ko ba pratiquement li toll ak fukk ñi ciy faatu wa jot nañ ko fexe ba wàññi ko boo doon jël téeméer yi ci doon faatu wàññi nañ ci à près ñaar fukk yoo xam ne faatootuñ ci boobu pour wane ne rek Sénégal rendez bi nga xam ne am na ko fii ak 2030 am nañ yaakaar ne dina ko atteindre pour atteindre l'élimination euh, loolu nag du ñu gisee ni ko xaymaa tey jii dafa am li ñuy wax répartition inégale tey boo demee Kédougou Tamba Kolda ñi am ci sibiru pratiquement mun naa ne téeméer boo jël juróom-benn fukki yëpp foofu lañ koy retrouver ñi ciy faatu tamit foofu lañ koy faral di retrouver cas grave yi tamit foofu loolu nag li ko waral mooy foofu dafa bari ay facteurs notamment taw bi déjà mi ngay commencer di taw bari na ay réseau hydrographique migration bi entre les pays voisins muy Guinée muy Mali ak l'orpaillage traditionnel mais également de boo demee Kolda béy gi ñuy béy ci biir kër yi ak taataa ndox yi nekk ci koñ-koñ yi mun na indi facteur yooyu mooy tax euh, sibiru bu gën a bari foofu mais boo demee bët gànnaaru Sénégal tey sibiru bu wàññeeku na bu baax a baax tey Louga Saint-Louis Matam ak une partie de Ziguinchor pratiquement mun naa ne sibiru bi boo jëlee junni nit ay ñett ba juróomi nit ñoo koy am par at donc euh, ci dëgg dëkk bi nag euh, muy ta muy Kolda muy Kaolack jurbel euh, euh, ak Fatick ak Kaffrine foofu ci digg doom la nekk tuuti donc ñetti fas yées yooyu lañ am fii ci réew mi loolu yëpp li ñu ko may mooy bu weesoo engagement politique bi état am li ko gën a indi mooy appui bi nga xam ne partenaires yi ñu ngi koy am ak xarañte gi nga xam ne personnel de santé bi am na tey mënuma terminer tudd ma gërëm sant ñi nga xam ne ñooy partenaires yi notamment le Fonds mondial di remercier USAID PMI di remercier OMS di remercier ñi nga xam ne ñooy UNICEF mais également tous les partenaires techniques ñu ñuy àndal muy MACEPA muy Plan International muy Speak Up Africa ñoom ñëpp kenn ku nekk am na loo xam ne yaa ngi koy indi mais di remercier également ñi nga xam ne ñooy communauté yi communauté yi mënoo xeex ab jàngoro te communauté yi bokkuñ ci tey le niveau communautaire ñoo xam ne seen engagement kenn mënu ko naatable muy ñoom Béytiir muy ñoom bàjjanu gox yi euh, muy ñoom élage ñoom ñëpp dañuy jàpp ci li nga xam ne mooy xeex sibiru bi ci niveau communautaire mais également di remercier agent de santé yi parce que tey li ñu mën yëpp agent de santé yi nga nekk ministère nga nekk région médical nga nekk district wala nga nekk poste de santé c'est vrai que dañoo nekk ci jamonoy tension mais ñu ñu war a gërëm lañ ñu ñu war a sant lañ ci effort yi nga xam ne ñu ngi koy def saa su ne pour que Sénégal nekk au rendez-vous état bi aussi mi ngi def ay jéego parce que nee naa sànq budget bi mi ngi jàll ci 172 milliards dem ba ci plus de 200 milliards mooy wane ne état mi ngi def ay jéego yu bare bare pour améliorer santé population yi di fàttali ne rek Sénégal moom objectif am mooy ñu fexe ba tàggoo ak sibiru fii ak 2030. Dakar boo duggee ci kër yu bari sànq yi dañ koy joxe mais sànq yi duñ ko jëfandikoo soxna yi boo demee dañ naan day yàq néeg bi. niñ ko laleeg ah, day ñaawal ni mais loolu dara jarul nga jëndee ko ak sa sa santé tey bu ñu classé ñiy faatu ci Sibiru bu weesoo gu Tamba Kolda dakaar nga ciy teg parce que li ko waral dakaar boo demee toog lu yàgg Sibiru bu nekkul ci yow dañuy wax sa immunité dafa wàcc mooy soldat yi lay aar day dem ba dootul nekk ci sa yaram de telle sorte que bu Sibiru bu egsee rek rapidement mun na laa faagaagal te loolu dafa jaaduwul ci feebar boo xam ne mën nañ koo prévoir mun nga ci aar sa bopp te boo amee sibiru mën nañ laa faj donc pour ñu wax la ne nit faatu na ci man boo ma ko waxee yenn saa yi damay posé ay question de telle sorte que dañuy ñaan waa Dakar les ville surtout ville yëpp parce que boo nee Dakar ne Thiès ne Kaolack mais dans les grandes capitales d'habitude nit ñi dañuy jàpp ne yëfi kaw kaw la boo takkee sanke yooyu du yëfi aar sa bopp wax dëgg fell loolu kenn waru koo jënd dara ñaan waa population Dakar bi ñu gën a góorgóorlu ci fànn boobu di jëfandikoo moustiquaire yi campagne bi cette année c'est vrai que douze régions la ñu jël boolewuñ ci Dakar ak Thiès mais am na sànq yoo xam ne bu ko nit soxla centre de santé poste de santé boo dem di nga ko fa fekk campagne bi nag ñu ngi koy def cette année ci douze régions yi en dehors de Dakar ak Thiès lancement bi ñu ngi ko fas yéene def le huit mai bi fii ci Karang di koy def ak suñu mbokk yi Gambien yi di ñaan suñu yàlla suñu borom yóbbu ñu ci jàmm. thématique bi mooy innovation yi pour xool na nañuy xeexee sibiru bi wàññi nombre de cas yi wàññi décès yi innovation bi ci gën a mag nag ñun mooy déjà euh, li ñu jël li nga xam ne mooy maire yi ñu fal. parce que maire bu ñu la falee lii di santé dafa nekk sa compétence Sénégal nag euh, chef de l'État waxoon na ne nañu fexe ba politique yi ñuy jëmal jëf ci kaw dañ koy jëmal ci gox goxaan yi tey jii ministère de la santé à travers le programme. fexe na ba jëmal ko au moins ci collectivité territoriales yi parce que am nañu seen i plan ak yi ñuy faral di tëral bi ci des mooy euh, appareil bu ñu wax làmp tey sibur lu mu faible feebal même boo amul benn signe boo demee ci bët gànnaar bi nga xam ne dañ koy éliminer boo fa demee am nañu état état may nañu ay appareil yoo xam ne boo ko tegee rek di nga gis sibiru même bu dee ñaari doomi jàngoro yi ñoo nekk ci biir bokk na ci innovation major yi bi ci des mooy vaccin bi nga xam ne Euh, Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne am na nañu yéene dugal ko mais loolu dafa laaj waxtaan bu ñu war a njëkk a def ak ñi nga xam ne ñooy acteurs yi muy scientifique yi muy euh, direction de la prévention bi nga xam ne mooy saytu ñàq bi ak ñi nga xam ne ñooy partenaires yi parce que dafa laaj xaalis bu bëri. beneen innovation bi mooy suñu entreprise yi dañuy fexe ba ñu jël seen i koppar di ko dugal ci xeex sibiru bu parce que nekk entreprise nekk ci ab réew jaadu na nga jël ci sa koppar yi xam ne bénéfice la. nga ñëw jàppale ministère de la santé pour mu xeex si biiru notamment boo demee tey lu mel ni gu am na ay société minière yu fa mag yu fa nekk war nañu mën a jël ci li ñuy gañee di ko jël di ko dugal ci xeex sibiru bi loolu nag Speak Up Africa ak Ecobank ñoo ngi ñuy jàppale pour ñu ànd pour xool nan la ñuy mobiliser ay ressources parce que xaalis bu ci bare bari bitim réew lay jóge pour jàppale ñu ci xeex sibiru war nañoo mën a fexe ba mobiliser ay ressources en interne pour xeex lii nga xam ne mooy sibiru bi ci Sénégal pour que à partir de 2030 Sénégal tàggalikoo ak Sibiru xam naa du yomb parce que yeneen dëkk yi muy gine muy Mali muy euh, Mauritanie bi nekk ak côté ak Guinée Bissau il faut ñu ànd ak ñoom bokk na ci yeneen innovation yi mooy la lutte transfrontalière parce que tey ji campagne bi ñuy lancé ñu ngi ko war a lancé le 8 fële ca Karang di ko def ak waa Gambie mooy wane lëkkaloo bu ñu lëkkaloo pour ànd xeex sibiru bi ci des mooy l' approche multisectorielle marché yeneen secteurs yi bokk nañ ci ñu war a ci xeex bi parce que assainissement bu baax day bokk ci li nga xam ne mooy indi Euh, euh, euh, wër gu yaram bu baax a baax notamment xeex sibiru